بسم الله الرحمن الرحيم تنجبانينا بكونا تي سكري بسم الله الرحمن الرحيم بكونا تي موند بي دا فا ملني ني مل تي بسم الله الرحمن الرحيم دا فا ملني بسم الله الرحمن الرحيم لا لي ام ييب بن بانخاس لا تي غراب بوبو موي بسم الله الرحمن الرحيم موتا سنجباني وان العوالم كلها خائمه بها جمله وقصيده مولم موند ييب mboolem golob golob yëpp ci bisimilah xarim yi la taxawee moo tax suñ ci baa ne ku bari loo koy wax moom bisimilah xarim yi di ko sikkar lu bari sun borom dalay jox li ñuy wax alhayba muy respect ci monde kaw bi ak monde suuf bi mu wax ne képp koo xam ne xam nga secret yi nekk ci biir bisimilah xarim yi mu teew ci yow nga teewal ko sa xol. soo bindee bismillahi rahmaani mi yor ko ak yow sawara du la mën a lakk sëñ Tuubaa nee na bokk na ci njariñal bismillahi rahmaani rahim képp ku koy sikkar lu bare bare ci aajo jum mën a doon sun borom dana ko faj rawatina nag bu dee aajo joo xam ne dafa jëm ci wàllu wërsëg te it sun borom dana ko wërsëgale moom moomuy sikkar bismillahi rahmaani rahim lu bare bari ak jàppandal ci fu ko feegul dana ko jox wërsëg fu ko feegee ak fu mu ko feegul boole ko nag suñu borom jox ko hayba ci xolu nit ñi ak ci ci kaw monde bi ci kaw ak monde bi ci suuf muy mulk ak malakoob malakoot fu ci ne day am dafa am wàccuwaay yi ci biir xol yi